الحمد لله الجزيل النعمة على مراد ما أعوذ yàlla julli ci rent bi di sant sunu wasila Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimal Moustapha ñu ngi fii tey ci Touba Lansar ànd ak waa daara Miftahul Nasri ak Tactic point sn di jotaay ak sunu jëriñ Serigne Daouda Gueye ñu gën ko xam sëñ gi xasida muy jëriñ daar mi taxoon na sëri ñu war a jotaay ak moom mu dikkal ñu tuuti ci liggéeyal daar ji ak taxawaay daara ji ci màggal Tuba dañ koy daal jox mu nuyoo sëñ Daouda Gueye bisimilah. salaamualeykum wa ngi ziar mbokki taalibe yëpp di nuyu ñëpp di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké. mu yàgg fi lool te wér lool ba naal yi mu naan liggéeyal ko sëriñ bi mu àggali ko mook njabootu sëñ Tuubaa gépp naka noon it di ñaanal sëriñ Cheikh Jëmm Fall mu yàgg fi lool te wér lool mook njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp di nuyu mbokki taalibe yëpp di jiitoo ci nuyoo bi waa communication wu daara ji nga xam ne ci liggéey bu bu bu tawféexe bi ñu def ànd ko waa Tactic com ñu ngi leen ciy sant bu baax ci liggéey bi di wax na rek daara ji daara la boo xam ne njàngalem sëñ Tuubaa moo ko tax a jóg yare ak yar ndaw ñi ci diine waaye teg leen ci yoon bi nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg ay taalibeem tegu ci daara ja mi ngi féete ndakaaru nekk boori HLM mu mel ni ci ren lañuy def juróom-ñaari at foofu nu féetee waaye it mu mel ni ren lañuy ñuy mën a wax ni mooy suñu juróom-ñaareelu màggal goo xam ne ñu ngi koy defee fii ci Lansar fi ñuy defee màggal gi mu mel ni foofu ci barab ba liggéey bi yàpp na lool jëm ci ndaw ñi jëm ci mag ñi moo xam ci njàngale alxuraan njàngale xasida ak njàngalum xam-xam fii it buñ fi ñëwee wàccaay màggal gi ku ne xam na ne màggal moom li ci sëriñ bi digle bokk na ci bernde bokk na ci it sant ak bég ak jaamu yàlla yooyu màggal gi kon bég tey bégale lañ koy mën a lañ koy mën a tuddee moo waral buñ fi ñëwee fànn wu ne dañ koy waajal ci côté boobu bu dee wàllu njàng mi nga xam ne moo jiitu danañ fexe ba buñ fi yegsee laataa ñu fiy yegsi ba benn fanu safar bi teeree ba léegi bis bu nekk benn kaamil bi ñuy jàng jëm màggal bu ñu demee ba bisu màggal gi ci lañ koy tëj mu nekk dix-huitième kaamil bi nga xam ne ci lañuy ñuy jàng muy dix-huit kaamil yoo xam ne lañuy jàngal sëriñ bi defal ko ko ci bisam bi naka noon it li mu xasida yi ba benn fanu fasawar safar téere lañ ko tas ci mbokki taalibe yi ñuy jàng xam naa waa culturel buñ ceeg see danañ ko leeral ba ñu xam li lim boobu nu mu toll naka noonu it buñ ñëwee ba 17 safar ci tàkkusaan ci lañuy tàmbali lim yi yeggali ko ñaan ko 18 safar nag ci suba gi nga xam ne ndem bis bi moom bisu xasida bisu bisu bernde la moom bernde yi rek kay tax a jóg bu ko defee ci lañuy nekk nekk ci ba ginnaaw tisbaar bàyyi mbokki taalibe yi ñu dallu ginnaaw tàkkusaan bi ca la njàngum xasida gi di tàmbali jëm na safar nga xam ne kuréel gu jug beneen kuréel toog kuréel gu jug beneen kuréel toog ba ni kuréel gu mag gi di jëlee njàng guddi gi yëpp waaye loolu yëpp bis bi yëpp da koy ànd ak bernde waxtu wu ne dañuy bernde ndax loolu la sëriñ bi digle ci bisam bi kon daanaka mën nañu wax ne nii lañuy tëralee programme yi nga xam ne moom la ñuy doxal doxalee ci màggal gi sëñ Modou. alhamdulilah kon sëñ Daouda euh, leeral yi am na solo hmm, kàddu yi am na solo sant nañu baax a baax léegi li ñu bëggoon xam mooy daara ji kañ la ak ci Touba ñaata fan lañ fiy def ak kañ lañ war a àgg ca ca tool ya. waaw mel na ni màggal dafa bari yitte ndax ku ne xam na ne bu njëkk mën nga bàyyi ba bañ ne suba la màggal nga jóge ndakaaru ñëw màggal si delluwaat ci ëllëg sa waaye léegi yoon wi xatee na noo xamee ne boo bàyyi ba ñu suba la nga jug dafay metti moo waral màggal gi moom yitte yi ciy taxawaay yi ci am yëpp ni mu baree nga xam ne daanaka liggéey bi ni muy toll ci wàllu technique bi ci wàllu organisation bi service yi côté yëpp nga xam ne day yaatoo noo xam ne ñaari fan mënu ko moo waral daara ji moom jëmmi daara ji ak mbooloo mi ñoom ñi ngi dem 15 safar daanaka bu màggal desee ñetti fan lañ fi yàgsi danañ fi am ñaari fan dallu yeggali liggéey bi bu ñëwee nag ba bisu màggal gi ci lañuy ñëwee ba bisu màggal gi nag ci lañuy tàmbali liggéey bañ bañ doon waajal bu ko dalee li ko dalee waa li ko dalee waa premier convoi ñoom danañ fi agsi bu bis bi desee une semaine nga xam ne ci lañuy ñëw indi indi bagage yi tàmbalee installé ak a monter ak defar waaw bu ñu màggalee nag ba ci ëllëg sa dallu bi journée bi yëpp ba ci guddi gi mbooloom yëpp mën a àndandoo waat delluwaat fañ jóge woon kon nii mooy bis yi nga xam ne ci ci lañ koy toxtal mel na ni bis yi yaatu na yaatuwul yaatu na ndax euh, bis yu bari la waaye yaatuwul ndax Sëñ Tuubaa lañ koy defal waaw lu bis yi bari bari bari duñ ko duñ ko mën a yëg waaw. Euh, léegi li ñu bëggoon xam gis nañ ne gis nañ ne daara ji mbooloo mi takku na lool. gis nañu tamit am na ay góor am na ay jigéen am na ay it ay ndaw ñu bëggoon xam organisation bi ci ci dal ci bërëb ci bërëb bi nan ngeen koy doxalee. waaw mel na ni euh, fii nag comme ni nga ko waxee daara la daara moom boo ko wooyee wootee ndaw day ñëw mag day ñëw gone day ñëw waaye bu ñuy jub jib ci ms événement yi mel nii muy màggal dañuy yóbbu sunuy waajur yi. ngéem ne ñoom dañoo bokk ak ñoom nekk ci gox bañ ne di liggéey sëñ Tuubaa ñu rafetal liggéey bi loolu ñoom ci ci taxawu gi taxawu gone yi ak ci lépp moo waral bis yi bu jotee ñun dañuy jël oto yab leen ci ñoom ñëpp indi leen waaye bu leen indee bernde leen euh, euh, dundaloo leen ni ñuy dundalee màggal ànd ak ñoom bis bi mu ñu noppee ànd ñoom delluwaat kon loolu mbooloo mi day takku waaye lu muy takku takku yëpp danañ ko waajalee noo xam ne secteur boo xam ne dafa tudd hébergement moom mooy fexe ba. mboolem mbooloo mi ni ñu toll kenn doom am jafe-jafe gone yi dina am barab yi mu leen di waajalal defaral leen fa ay matelas defaral leen ko climat climatiser leen ko defal leen ko ay ventilo yëpp ba nga xam ne du ñu am dara lu leen di jaaxal euh, soxna yi it ñu ber leen ndax ne ku ne xam ne ne sëñ bi mës ta bëgg euh, góor ak gas jaxasoo góor jigéen moo tax danañ fexe ber soxna yi ñu am seen appartement bopp boo xam ne fa la ñuy nekk ñoom ñoom seen biir fexe gone yi ñu ber leen fexe mag ñi it ñu ber leen ba nga xam ne kenn du jaxasoog moroomam ci dara waaye it fexe mba waajal mbaar moo xamee ne lenn rek moo koy tax a jóg mooy mooy jàng xasida jàng alxuraan ak julli te mooy mbaar mi ñu toog nga xam ne moom mooy mbaarum xasida gi moom li ko tax a jóg lenn kese la mooy jàng xasida jàng alxuraan guddi bi màggal yëpp fii lañ koy defee ba fajar looloo waral nag euh, looloo waral du ñu bëgg mbooloo mi jaxasoo ba di ba di yàq liggéey boobu kon loolu noonu la organisation boobu demee. am na solo loolu Diorine sant nañu bu baax a baax ci kàddu yi di tubaat toogaay bu yàggee gi ñu koy tubaat bu baax a baax xanaa bu ko defee dañuy dañuy daal dee tàggatoo rek nga wax sa kàddu gu mujj. waaw kàddu gu mujj gi dafay jëm ci mbooloom mbooleem mbooloo mi nga xam ne ñoom lañu àndal liggéey bi te benn muy waa daara ji ci taxawaay yi ndax ku ne xam na ne taxawaayu màggal ni mu ni mu méttee benn bokk na ci sas yi ni muy ni muy taree ñaar bokk na si wàccaay gi ni mu méttee ci fànn wu ne secteur bu nekk ñett it bokk na ci bu ñu yegsee ba fii liggéey bi ni muy taree waaye loolu yëpp amul kenn koo ciy xool ci ñoom ci moom ci xar kanam gis ci ak sonn wala ak tayal ba ci yéen ñi gis nga seen liggéey bi nu mu méttee waaye yéen a koy def ci anam bu muccee ayib loolu nag dañu leen ciy sant yéen ñëpp moo xam communication la hébergement collation secteur kafe gi colla euh, collation cuisine bétail yëpp organisation bàyyiwuñu kenn ndax ku lim rek da ngay da ngay da ngay fattu waaye ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ñi ngi leen di sant ci taxawaay bi ak lépp di sant mbooloo mbooloo mi ci ci ci ci yittegu bi waaye ginnaaw te yi ñu bàyyi coono yi ñu bàyyi ñoom ñëpp ñëw ànd ak ñun bis bi di sant it ñi nga xam ne ñoom lañu àndal bis bi ñoom ñëpp di sant it euh, yéen waa communication wu daara ji ak tactique point sn yi nga xam ne moom ngeen àndal ci liggéey bi liggéey bi nag mel na ni mucc na ayib mun nañu wax daan na mucc ayib waaye ren moom raw na ndax liggéey bi nu mu gën a mu gën a taaru kon loolu ñu ngi leen sant bu baax di ñaan nag tey la 17 safar ngoon danañ dugg ci bis bi nga xam ne mooy 18 safar ñaan mboolem li nga xamante ne ñi ngi koy wàcc ak di ko bëgg pour def ko ci sëriñ bi gàttandunu ak taw tawféexam ba bis bii ñu koy defal mu nangul ñu ko gën ngaa màgg nag màgg nangu barkab xasida yi ñu tiim alhamdulilah kon sant nañu baax boo ko defee dañuy daal di wàcce foofu kàddu yi rek naa ba ëllëg ci 18 safar bi jërë ngeen jëf. alhamdulilah al-jazil al-ni'mati ala qurati ma